njaayum bale essuie-glace doon appareil bi faxas ndoxu taw bi dal ci parabrise woto yi doon liggéey bu dox ci jamonoy nawet jaaykat yi fare suufu pont foire ak rond point liberté 6 di ko dëggal. si nawet bi lay gën a dox quoi parce que si nawet bi la ñuy gis gën a gis suñu bopp si njaayam essuie-glace bi quoi parce que bu tawee bu xiinee nga client dañuy profité ñëw jënd buñ jëndee nag bi avant muy taw ñu montel leen parce que bu tawee duñu gis parce que. taw bi mooy tax mooy tax ñu gis fu ñuy jaar quoi. nawet bi la gën a lay gën a dox quoi mais essuie-glace yi am na ñoo xamante ne nawet ak noor dañ koy jaay dañ koy jënd ndax am na ñoo xam ne seen oto moom donc bëgguñ dara lu ci yàqu dañ ko respecté mais am na ñoo xamante ne moom nawet bi sax dañ du jënd boo waxee dañuy négliger balay seen appareil sax du dox. borom oto yi moom ñoom dañuy sooxaale bale yi mais am na ñoo xam ne tamit duñ ko sooxaale. parce que am na ñoo xam ne bëgg nañ seen pare-brise yi yàgg parce que bale day aar pare te aussi boo ko monté ci pare-brise am na bale yoo xam ne boo bu nettoyé day day yàggal pare-brise quoi moo tax ñu koy faral di jaay ci nawet mais noonu ñoom nawet bi lañ koy gën a jënd quoi. jaaykatu bitig mbagg bi jaar ci diggante woto yi loxo bi fees dell ak ay bale essuie-glace njëg li ñaar téeméer la tàmbalee su daan xëy di jaay ñaar ba ñetti essuie-glace nawet bi tàmbali dina wàccee gën gaa néew ñaari junni. bu nekkee ne di yàlla ji dafay dafay taw ni moom bu ñu xëyee dinañ am max ay dix mille onze mille douze mille dañuy wàccaale mais bu nekkee noor moom deux mille francs trois mille dépasse rek ngay daw mais nawet bi moom la tane quoi nawet bi la ñuy gën a gis suñu bopp si bale yi. nawet bi sax au contraire noor bi la ñuy gën a mën a jaayee client prix bu baax ne nawet bi waaw ndax am na ñoo xamante ne xamuñu sax luy valeur u essuie xamuñu ko dañuy dawal sans essuie-glace dañ koy dawal. da ngay gis nit yor balé mais nak ñi ci ëpp dañ koy jënd c'est parce que donc dañuy dox soxla nañ essuie-glace mais essuie-glace priorité la actuellement ni ci auto mo xam ngay chauffeur clando wala taximan ñepp xam njariñu balé essuie-glace bu nawet bi téro chauffeur ci diko yeesal ngir mëna daw ci biir taw bi. xam nga nawet bo ci daw tank mi ngi taw amuloo balé yaa ngi ci dansé parce que do gis fi ngay dawal man nga mbëk ni soor mën nga mbëk auto te am na ñoo xam ne du ñu bëgg du ñu bëgg di gaar ñu bëgg di préférer yi daw te loolu jaaduwul bale sax boo ko amee sax am na yeneen façon taw yoo xam ne bu koy taw war nga mën a obliger gaare parce que dootoo mën a gis li ngay dawal te da ngay mbëkk àllu jawwal nga mbëkk nit te mën nga ko gaañ mën nga gaañ sa bopp tamit te ay nit ngay yeb essuie-glace moom boo ko moo gumba guy dawale yem rek ndax say bët boo ko bàyyee sa kër di dawal moom donc yaa ngi si risque su fekkee da nga bàyyi ba nawet ñëw mu ngay demee xaar bu mu taw ma doogaan deka defar kooku yaa ngi ci danger parce que bale tout le temps muy noor muy nawet da nga wadi soti ndox dawal bale muy bañ a grippé bu nawet ñëwee bu tawé nga mëna gis fi ngay jaar. bari na ci chauffeur yi dawal seeni woto fekk na balay essuie-glace ya baxul ñak appareil bi fa xass ndoxu taw bi rot ci parabrise woto yi don danger na fan yi ñu jëm. bari ñoo xamante ni fii dañuy daw sans bale dem na ba ci taxi ba ci particulier ba ci chauffeur kalandoy dañuy dawal sans bale man personnellement comme man chauffeur la di dawal kep koy defee man anduma ak yow parce que ay bakkan ngay yeb te koy yeb ay bakkan auto bi ci bop warna wër warna wër bu baax ba nga xamante ni soo ko wala 160 du auto bi def dara nga yar balé tamit balé daw bu baax di mëna faxas ndox mi ba mu set wécc ngay mëna gis fi ngay jaar tamit a ci am solo. bu féké amo appareil cyclage ni mu waré ni nga waré gis gis bobu du démé non bo gisé nawet bi choc yi di bëreeg yi démé non li ci ëpp manam ñak appareil cyclage dal ta balay fu mu nek balay yo xamne balay yu jeexul la dal bu fekke dafa nek balay yu jeex bon ni nga waré gis tamit do ko gis parce que du ko fomp fomp bu doy da ngay manquer ba vision quoi fi nga war ni nga waré gis do ko gis. sa que balay gis nga bu amé ndox day daw normal waaw sa da wara toy di daw sa que parce que comme ni mi dawé ni lim wo tax mais bu toy da war daw normalement ni la wara def mi fax ndox mi muy set wetch fa nga mané gis fi ngay jaar da ci am solo trop waaw vraiment man lool la ci bëgg trop. chauffeuru taxi ak clando di ñaax seeni naataangoo ngir ñu sàmmonteeg ndigalu code de la route. affaire bi du question sax nawet sax rek lañ ko war a defar parce que dina toll foo xam ne day mel ni genre comme neige daal comprendre ma la day mel ni comme genre neige bu defee noonu bon foog nga am bale boo amul bale bon doo doo mën a gis sa vision du doy ni nga mu war a doye daal waaw affaire bi du question ne nawet li dugg rek lañ ko war a changer. mais affaire bi à tout moment war nga ko mën a changer parce que day toll foo xam ne asamaan si day niis daal day niis bu defee xawee lëndam noonu bon li nga waree gis doo ko gis daal bale yi moom moo la ci mën a génne. man samay bale moom mu ngi dox normal suma ko bàyyi sax mu mu mu mu kii daal mu taxaw samay bale moom day dox normal ci nawet ci noor dama koy tàngal chaque jour saa yu mu xëyee mu circuler tuuti pour mu bañ a gripper waaw man noonu laay doxalee samay kii daal am na ñoo xam ne dañ koy négocier di ko cap-capal maanaam di ko dawalee noonu sans nawet mais danger la danger la nawet bal bale bi moom dafa war a dox à tout moment lu ma leen ñaan mooy ci nawet bi ñu defar seen bale mu dox normal amul benn problème jéem nañoo jokkook ndaw yi faré ci direction bi yor lepp lu jëm ci walu sécurité routière ginnaw biñu gantalé séti nañ wa auto école ñu ñuy fàttali njariñu essuie-glace ci biir jamonoy nawet. ñu expliquer lan moy essuie-glace c'est un dispositif mécanique bu ñu boole ci auto et pour euh, conserver aérodynamisme auto bi mo waral ñu def ko ci bordure capote yi donc defuñu ko n'importe où dañ ko def ci bordure capote yi pour boko utiliser mu mën jël le contour du pare-brise dafa am solo nak bu primordial ndax euh, ku nek war na xam dawal bu wor gis-gis mo ci mo koy sabab donc la vie c'est la vue on a l'habitude de dire kon tay euh, essuie-glace ci période hivernage même dul hivernage dañuy wax nan euh, dawal auto ci période intempérie parce que xëy dañ nek ci zone sahélienne taw lañ mëna wax mais amna yenen yeneen intempérie yo xamné utilisation ice essuie-glace ba ci am solo chaque fois première pluie bu da Dakar accident yi xawa bari parce que les gens dañuy oublier que ni nord bi ñu nekkoon huile dan daan ci tali bi graisse yi daan tuuru ci tali bi premier jour de pluie bu ñëw da koy yëkëti motax ñuy soññ nit ñi à ce que toujours ñuy maintenir une distance de sécurité bu normal, di wañi accélération bi ba paré nak chercher manam ut li nga xamné mo importance moy un dépassement ou un croisement ñu def ko dans les règles de l'art parce que dafa am phénomène bu ñuy wax ci tali bi bu tawé muy l'aquaplaning tay euh, moment où nous wara commencer changer ay pneus, parce que pneu bu amatul crampon dootoo mën japp ci goudron bi te bu ndox mi nekk ci diggante pneu bi ak goudron bi bo freiner crampon dootul ci tali c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aquaplaning c'est quand l'eau diminue l'adhérence des pneus su weesoo bala yiy fomp ndoxu taw bi dal ci pare woto yi di dàndante ñaar ba ñetti meetar diggante woto yi ak ay pneu yu baax bokk na ci liy wàññi accident ci jamonoy nawet